Pape Bouna Makalu laa tudd di membre PRAD parti de la renaissance africaine et de développement bokk ci coalition Beno Bokk Yakar. sama teewaay fii tey dañuy recevoir suñu respons suñu coordinateur départemental di Alioune Alioune Ndoye pour ñëw dolel suñu commune ci suñu ginnaaw coordinateur Ababacar Chérif Bey et lii waral suñu présence nag. tout simplement dañuy wax dañu dérouler parti suñu benn parti programme di wër euh, ci niveau jumaa yi ak euh, euh, daara yi ak ci niveau ci niveau chef de quartier yi délégué de quartier yi ñoo set leen pour sàkku ñaan par rapport ak élection yi ñu jëm di 30 élection 31 juillet li tax nag ñun ñu nekk ci coalition benn Bokk Yaakaar dañu ut sécurité la ñuy ut sécurité réew mi la ñuy ut maanaam jàmm ci réew mi te yaakaar nañ ne coalition bi Benno Bokk Yaakaar mun na stabiliser dëkk bi ci lépp luy wàll ci sécurité parce que ay Sénégal du dëkku ay Sénégal dëkku jàmm la te foog naa am na politique bu ñu bëgg a mëne di politique sécuritaire di politique de formation di politique d'emploi politique soqali Sénégal à travers une jeunesse loolu est défi président Macky Sall loolu défi la coalition Benno Bokk yakar ci suñu leader. défi de dafa bari niveau social à niveau économique et à niveau sécuritaire surtout niveau sécuritaire parce que nous nañu xool ne li wër dëkk yi ñu wër est ay tolof tolof yu nga fa te indi instabilité politique l'instabilité politique nag li indi insécurité bi fa nek te Sénégal dëkku jamm la te yakar nañu né suñu leader yi fi nek ak suñu kilifa diiné yi fi nek amna na fi liggéey jotta liggéey pour dëkk bi stable lool dal mo waral suñu téway fi te lool lañuy ñaan population bi yépp ñu ànd votel coalition Benno Bokk yakar par rapport ak stabilité bi sécurité bi ak euh, lépp loo xam ne économie la pour jëme dëkk bi kanam. je m'appelle euh, Sada Guiro je suis responsable de l'APR euh, chargé de de, la sensibilisation, la commission de sensibilisation de, de Beno Boko Voilà. Bon, ce matin aussi, euh, fille, on a accompagné le coordinateur euh, de Dakar qui est M. Alindoy, ministre euh, de l'économie maritime, avec le directeur général du port de Dakar, Abba Sadifé, qui est le coordinateur de Beno Boko au niveau de Djepel Derkle Kassor. Voilà, nous avons euh, proximité waxtaan ak euh, les notables du quartier ñu fi que, waxtaan ak ñoom loolu mu ñu fi ne woon le waaw. waaw li tax ñu voter Benno Bokk Yaakaar ci législative c'est pour d'abord laisser le président continuer ses chantiers parce que nous gis nañu démb mu ngi woon euh, inauguré pont bu Cameroun le président mu ngi à Saint-Louis l'aéroport de Ousmane massé Ndiaye bo xamné ni tay képp kuy doomu sénégalais ak Ousmane Masseck Ndiaye jaar-jaaram ci biir Sénégal tay wax dëgg fa Yalla mérité won na tour bi tay sénégalais yépp kontaan ci lolu donc on doit laisser le président continuer ses chantiers ces grands chantiers qu'il est en train de mener dans ce pays que mu nek Dakar que mu nek en dehors de Dakar dans tout le Sénégal euh, pour que le Sénégal puisse rayonner en 2035 euh, moo tax euh, ñu war ko fi mëna a ba ci kanam donc c'est pour cela que nous, en tant que jeunes, ñu jog engagé wu le président de la République pour wan que vision pour le Sénégal vision vision pour le Sénégal que les jeunes doivent venir approprier le président de la République Macky Sall bu ñu endoctriner. ñu y a des gens qui sont là qui vont endoctriner cette jeunesse sénégalais là C'est la le terrorisme intellectuel et nous, en tant que jeunes, en tant que panafricanistes, nous devons nous faire un noonu Nous loolu moo tax ñu sol suñu tànk xar président de la République une assemblée nationale confortable pour diriger le Sénégal dans l'instabilité, dans l'état de droit Nous sommes engagés ñun ñu engagé pour président de la république pour wan que a 2024 lu yàlla def après nous voilà merci